sakkanal leen bañ mën a taxaw sakkanal leen ba nga xam ni bu ñu amee dara lu ñuy am ci seen yaram ñu mën leen a teel a yóbbu hôpital bala ñoo egg ci phase boo xam ni phase terminale lay doon ndax bari na ci mag ñoo xam ni li leen faagaagal mooy bi ñu leen di indi daanaka lépp jeex na ngir moytu lu mel noonu nag bu ñu gisee dara loo xam ne am na lu leen di metti ñu mën leen a yóbbu bi ci mujj rek mooy ndaw ñi xam ngeen ni histoire u Sénégal ndaw ñi dañ ci am pàcc bu rëy xam ngeen ni économie Sénégal ndaw ñi dañ ci am lu rëy xam ngeen ni politique gu Sénégal ndaw ñi dañ ci am lu lu rëy damay wax toujours ni leen ñun xaaruñu Corneille ni aux âmes bien-nées la valeur n'attend point le nombre des années Sénégal am na ko bu yàgg xanaa dégg ngeen Amari Ngoone Sobel xanaa dégg ngeen Ngoone Latir xanaa dégg ngeen Yacine Boubou xanaa dégg ngeen Birame Yacine Boubou xanaa dégg ngeen ay xale yoo xam ne même ci lii nga xam ne moom mujjee kenn ku ci nekk daanaka njàmbaar gi nga def bi nga koy def amuloo ñaar fukki ak juróom kon ndaw ñi nañu yeewu ndaw ñi nañu xam ni li leen di xaar mooy chantier yu mag yi nga xam ne ëllëg ñoo ko war a def ndax dañuy wax ni personne nu fera en notre place ce que nous ne sommes pas disposés à faire pour nous-mêmes loolu nag li ñu koy may mooy ay ndaw yu wér mooy ay ndaw yi am xam-xam ndax bopp bu am xam-xam kat nopp yi dégg moo ci sax dégg nag dafa am solo boo déggee mën a jëfe ndigal jëfe lañ wax kon xale yi nañ dellusiwaat xale yi nañ sàmm seeni mag xale yi nañ xam ñooy ñan xale yi nañ am jom nañ am fulla nañ am fayda xale yi nañ farlu fulla mooy nekk ci lu baax ci boo ko jégee rek ñàkk fulla fayda mooy nekk ci tool yamale yow képp nga nekk ci ak téeméer fekk la ci buñ ci fekkee yaa ngi ci buñ la ci fekkul yaa ngi ci ñu ni kii am fayda farlu mooy loo xam ne fu waxtu wa jote nga def ko ca kenn du la soññ loolu yaakaar naa ni ndawi Sénégal foofu lañ leen di xaar ndawi Sénégal buñ leen teree dara du dañ leen ko bëgg a tere dañoo bëgg rek ngeen wér ngeen am jom ndax programme bi ñu jëm tey muy relance économique ñu wéer ko war a def ñu am xel ko war a def ñu muus a ko war a def ay jàmbaar a ko war def te ñooñu mooy ñi nga xam ne mucc nañ ci Covid 19. kon ñu ngi santaat ñëpp di gërëmaat ñëpp di ñaanal leen ñëpp ni mesure barrière yi nañu ko defaat nañu takk masque yi nañu moytu euh, dis nañuy def distance. diggante sunu moroom ak nun waaye it nañu laxas nañuy raxas suñuy yoxo ca moytu xew yi ca xam ni bu ñu wéree am doole fu nekk mën nañ faa dem waaye ku wérul amoo doole am na liggéey boo xam ne doo ko mën a def ñoo ngi santaat ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin